Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques. Vous aspirez à devenir un cadre polyvalent, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie. Entrez dans la grande histoire de l'école supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes: génie biologique, génie des industries agroalimentaires génie des industries chimiques, hygiène, qualité, sécurité et environnement, génie des procédés industriels. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 Extension, en face VDN. Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33 867 02 03, 33 867 02 03 ou au 77 094 05 75, 77 094 05 75. Email esgib sub@gmail.com la lumière du savoir. waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futur Média dal jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci la ñuy waxtaane la ñu ca quartier Daaru Salaam nekk ca Kër Masaar lu toll ci ñaari téeméeri kër ñaan fukk ak juróom lañu fas yéene daane la dogal ba nag bàyyeekoo na ci tribunal départemental bu Pikine Y'en a ak waa FRAPP France dégage teewoon na fa tey ngir jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo fa loru dinañ dem tamit ci waanu Thiès jàpp Bambey ci dëkku kaw ko dañu mànkoo rek lànk ne dootuñu fay facture yu bàyyeekoo ci ndox mi li ko waral nag nee nañ dañu jébbal kër googu ñu teg si ay ñoo xam ne rek cosaanu ñu fii ci Sénégal di doxale noo xam ne rek euh, yittelu leen dinañ wax tamit ci gàmmu atum 2020 ak waajtaay yi foofe nag euh, champ de course euh, bale ca Tiwaawoon nee na noppi na rek ngir dalal ñi nga xamante ne ñooy taalibe yi daayira Moustarchidine wala Moustarchidaty nag ñu ngi fa woon tey di balek ak eh, nettoyer ngir bés bi rek bu ñëwee rek ñu mën ko amal ni mu gën a rafetee mbokk yi li may ponk yi boo leen taaxirloo ñu yaatal. mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ñu door rek ni ñu ko waxee ci ponk yi dem ba ci quartier bi ñu duppee Daaru Salaam nekk ca Kër Massar foofee nag lu toll ci ñaari téeméeri kër ak ñeent fukk ak juróom la ñu fas yéene daaneel dogal ba bàyyeekoo na ci tribunal départemental bu Pikine ñu ne nag waa mouvement Y'en a marre ak waa FRAPP France dégage teewoon na fa tey ngir jàppale rek ñu fa loru ñu teewlu seeni kàddu ci micro ñi nga xamante ne rek ñooy Asmalik ak euh, euh, micro Salif Sow Asmalik Diop. 9h ñun ñëpp nañu fa fekk bu yeboo ñu indi seen grande lacrymogène seen liif autorisé ou pas ñun ñëpp nañu fa fekk ñoom lu leen jaral. ngir aar kii moom suñu alal ñun dañ ñun nañu jaral lu ko ëpp te incha allah dinañu ko jaral. fi may daanelee mooy waxoon naa leen ne du wax lu bari ci Abdoulaye Dia tuuti rek laa ciy wax bañu ñu si ba lancer ay campagne de boycott contre ses intérêts contre ses produits. Abdoulaye Dia bu Sénico na recevoir waa Daaru Salaam extension ci nu mu gën a gaawee et sans condition sinon. may nañ ko fii ak fan ñun ñëpp ñu ànd lancer une campagne de de boycott des produits de Sénico on va s'attaquer à ses intérêts on va s'attaquer à ses intérêts parce qu'il veut s'attaquer à nos vies il veut s'attaquer à nos familles il veut s'attaquer à des femmes il veut s'attaquer à des hommes il veut s'attaquer à des jeunes ñun ñëpp on va s'attaquer à ses intérêts mu kanam borom a koy fajal boppam te ñii ma gis nii amuñu benn yërmande faale wuñu suñuy suñuy génn fii di fanaan ci mbedd yi ils s'en fichent wuñu ko ils sont insensibles maintenant ñun nag ñooy xam ni on ne doit pas dormir dehors Ablaye Dia su amee lu muy lijjanti na ko lijjanti ak na ko lijjanti ji ak Ablaye Wade ak état mais ces 245 maisons, Beyoué de Mousse, ne seront jamais, jamais, jamais démolies. ñu wax ci beneen mbir ndox diggante ki nga xamante ne mooy euh, borom xaalis boobee doon yëngu ci wàllu ceeb di Bocar Samba Dièye digganteem ak banque bi di CBAO e CBAO e moom nag euh, dogal ba tamit euh, bàyyeekoo na rek ci benn rapport expert bu nga xamante ne waa Cour suprême ñoo ko mandaté woon ak nag ci seeni kàddu ñu ngi ñuy xamal ne kookee di Bocar Samba Dièye moom la ñu jox dëgg bu weesoo nag juróom-ñaari milliards yi nga xam ne. jotoon nañ ko jële ci contre euh, Bocar Samba Dièye te waa CBAO defoon li ni mel nee na nag banque ba war na joxaat lu toll ci 900 millions di kookee di Bocar Samba Dièye ñu teewlu Famara Ibrahima Cissé ak euh, Bocar Samba Dièye ci boppam ci micro Alassane Ba expert bu njëkk ba wax ni bu ñu bëggee dëgg bu ñu bëggee gis dëgg Bocar Samba Dièye moo am dëgg ci CBAO CBAO ne expert boobu dafa far ba ñu kase expertise boobu dossier bi nekk cour suprême cour suprême ne balaa maa jugé il faut que ma jël tamit avis expert tànn beneen expert kooku liggéey liggéey bi xamal leen ni dëgg bi mu ngi féetoo ci bokkat sàmba Dièye lii nag di wone ni Bocar Samba Dièye dafa nekk victime sàcc ñun ak ñu yaakaar ni justice bi nga xam ne ñun dañ koo gëm dana ibbi bëtu sénégalais yi xamal leen ci fukki at ak ñaar yi nga xam ne ñu ngi toog ñoom ñëpp di xaar résultat bi ni dëgg bi ci côté Bocar Samba Dièye la ne. bor bi ñu waxoon fay naa leen. ci banque Abdoul mbay balee moom ba bis bi maa ngi kayit boo xam ne mënuñu leen amal amaloo ñu bor nangam nga amoon ci xaalis jël nañu xaalis ba ba biyaawu bi bu Abdoul mbay bii lañ wax ne amee naa bor fay naa ko dañ jox ma kayit ne fay naa ko am naa avis de fu bi génne kon nag man amaluma biyaawu baaluma leen nag képp koo xam ne moom ma dugal ci mbir mi yàlla na la yàlla fay bor bi ñu jógee ndakaaru wutali Thiès Bambey foofee nag ci dëkku àll yi kër gi nga xam ne moo leen doon séddal la ndox te ñu gën ko xam ci Aquatec ñooñee way jëfandikoo yi dañu fas yéene rek lànk ne dootuñu fay seen facture li ko waral nag ne nañ ñooñu bàyyi ko bitim réew dañu leen bàyyi rek ñu def nu leen di neex te dëppwul ak li nga xamante ne rek noonu la ñu bëgg woon mbir mi di doxee Babacar Diouf moo ñu teewal ci diiwaan ki yore ndox mi nga xamante ni moom la ñuy naan ci forage yi ci diwaanu cees ak Diourbel ba moytuwul dina jëli bagaasam dem boo moytuwul de loolu mooy am bu mi nga xam ni ñoom ñooy naan ndox mi defee li nga xamante ni mooy la ñu wax nee nañ daal dootuñu fay benn facture ndox boo xam ne nii jóge na ci ñoom. ndox bi ñuy jël mooy monde rural bi dootuñu fay benn facture ndox benn opérateur privé moo ko def Canada kon jël nañu ko bu yàgg dafa def ñaari suñu mbay jaam xam ne évaluation yi jeex bu yàgg nañ ko arrêté du ñu fay benn facture nag bu jóg ci Aquatech monde rural bi yëpp kenn dooru ko def ko waral nag nee nañ ki nga xam ne moo yor ndox mi ci àll bi fi mu nekk nii da leen a rey ba ñu dee wet rey seen koom bi tamit sunu maraîchage nekk 12 hectares Aquatech rey na ko ba mu jeex ay partenaires yaa dafay ñëwoon ay partenaires yaa ak Daaru Diop Kër Ousmane Baba Garage si ci maraîchage la ñu jënd rey na ko ba mu jeex ndax bi mu ñëwee dañoo fekk ñu may nu séddaloo yokkal ndox mi ba pare soobe yi àgg foo xay bii nii sori na mais lépp wàcci waat na ko amatuñu ndox suñuy garab dee na suñu tool dee na ñoo ngi delluwaat ci ci gaal yi suñu gale yi gone yi doon dugg tax na ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkku àll yi di naan ndox mi jóge ci forage yi mais suuf ndaxte nag dafa amul lenn lu baax lu mu leen indil mu nekk laaj boo xam ne ni ñu ngi ko laaj ci doxum ñaxtu bu ñu amaloon ci nangal ma. Babacar Diouf dañuy desandi ci dëkkuwaal yi dem ba ca diwaanu Ndoukoumane foofe nag béykat yi am nañ jaaxare lool li ko waral nag donte ñu bari dañu jàpp ne nawet bi atum ren jii dina baax waaye la ci bàyyeekoo ci wàllu meññeef moom ñorul ñor bi war a tax daal ñu mën ci gis seen bopp tax ñu ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu jël ay matuwaay ngi ko deful rek. maral wala sax xiif mun na am ci réew mi dañuy teewlu reportage Oumar Ndiaye àndoon ceeg Boubacar Fall boobu. yaakaar gu tas moom la baykatu ndukkumaan yi am ci nawet bii ndax lu xeetoog dugub ji daanaka ngóot rek la am amul benn pepp dugub lu nu mel nag jaaxal leen lool su ne yi nga xam ne dañ demoon ba mu jilee na ji ah benn amu ci pepp ndax ragal naa li ma ngëm nii kenn gisu ci benn pepp ngóot kese la amul dara ngóot kese la dañ xamul nag lii moom feebar la wala ci ndox mi nim ñëwee te fekk su yi di palpal pareegul moo tax mu mel. loolu moo leen indi njàqare ba sax ñu ne dem na ba laal lu xeetoog mboq mi ba ci gerte gi. mosuma gis benn nawet boo dikk mel nii ndax man de ba ma dala béy ba léegi maa ngi door am ci nawet. te man de li ma béy ci sama tool bi mu nga xam ne bii moom moom laa béy nii at mu ma ko masaan a béy ni moom moom six set sept tonnes dana ci génn. te xam naa ne une tonne lu du ca génn dugub bi focc na ba mel na mu war a mel mais benn pepp new ci dañ naan wànq meddu sax wànq man daal pour man dama naa leel corona bi am ci nit ñi moom la yàlla def ci mbéy mi ndax bëri na koñ boo ci waxee ñu ne ñun suñ suñ dëkk suñuy mujj daraa ci daraa ci meññut mboq yi aussi noonu li ma gis daal moom ku ci bay loo xam ne la mën nga caa dund léegi maam ñaari wer ñetti weer nekku ci gerte gi màggut ñax mi nag dafa bari te ñax bu baree gàncax mën naa ñaaw kon xañ la loolu moo tax waaye li ma gis ci dugub ji xam na ci mboq mi te seenu naa ko ci gerte gi. loolu waral baykat Ndoukoumane am njàqare lool ci noor bi ñu mal ndax lu xetoog dund moom soo amul sens dana métti lool ci ñoom. moo waral nag ñu teel a yëglu ci nguur gi mu bàyyi xel lu ñu mel donte nag atum ren ji ndox bari na lool fi ci doona Ndoukoumane. Njaay bu ñu jógee ci mbay mi dañuy wax ci napp bi ak jamono ji coow luy bëri woon na li ko waral nag li ñu duppee licence de pêche te am ñu njortoon ne rek euh, gouvernement wala sax ministère bu yore boobu fan dafa joxoon rek ay euh, nit ñu yëngu ci boobu fan cosaanoo bi ci réewal ay licence de pêche loolu nag am na ñeneen ñu taxaw rek weddi ko ba mu set wecc ñu ne nag dafa am lobby yoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw. di def kem kàttan ngir nasaxal liggéeyu kilifa yi dañ ci teewlu général Djibi Ndiaye mareyeur la moo yor kàddu tamit euh, nappkat yooyu ñu teewlay kàddoom ci micro Alessandra. ñu gis à chaque fois rek euh, ONC yi dañuy ay nit ci tefes yi monter ay nit yi ñu di ko saaga di ko xas di ko yekk lu mu xam ne lu lu lu jur loolu li mooy fii ministre de bi fi ñëw rek ONC yi daañu def ay montage fexe ba dàqul la. ñun nag ñu xam ne Alioune Ndoye liggéeykat la te am na programme boo xam ne ni am na njëriñ ci mareyeur yi nekk Sénégal ñu ne ñun du seetaan loolu tey ñu dajale mareyeur Sénégal yëpp dëkk bu nekk am na délégation bu fa jóge ñu ñëw pour défendre loolu xam ne nii dañ koy tekki nootu Alioune Ndoye te saa ñu ko tegee mu tegg na li ngeen may waxal amuma amul defuma ko mais à chaque fois ñu monté ay nit euh, tiital askan wi neen jaay nañ géej gi géej gi amatul jën euh, nangam nangam te yooyu ñu wax dara amu ci loolu nag moo tax ñun ñëpp tey jii ñu boole suñu doole boole suñu su suñu xam-xam boole suñu lépp nekk benn pour jàmmaarloo ak ñooñu xam ne ni vraiment dañuy xajamal euh, nguuru Macky Sall mais dañuy xajamal ministre de la pêche pour état Sénégal jëlee ko fa. ñu jógee ci géej gi nag ñu wax ci mbas mi di coronavirus ak tulluwaayam jamono ji ñu ne bésub tey bi nag. mul kenn ku ci ñàkk bakkanam jot nañu amal junniy test ak ñaari téeméer juróom fukk ak juróom benn ci cappaandaw ba nag ñaar fukki nit ak juróom-benn ñoo amee doomu jàngoro ji juróom-ñaari contact ñett bàyyi ko bitim réew fukk ak juróom euh, jële ko rek foo xamante ne xamuñu ko jamono ji nag ñu ne juróom fukki nit ak euh, juróom ñett ñoo ci wër ba dellu seen kër. ñu del si rek wax ci fan yi ñu génn rek ay chiffres yi ñu génn woon ñu ne rek jamono ji Sénégal moom taux de chômage bi dafa yokku ba ci 48 pour cent Euh, DG ANAM moo di Maodo Malick Mbaye nag weddi na li ni mel ñu ne nag jokkoon ak waa BIT te loolee nag li ñu fësal rek mooy taux bu chômage bi moom fukk ak euh, wala téeméer boo jël rek euh, fukk ak juróom-benn la maanaam 16 pour cent tax na rek ñooñu waa BIT sax ñu ngi xayma rek ab wàññeeku bu baax a baax ci fii ak kii ay weer rek ci 6 pour cent dañuy teewlu ay ci micro Alassane li ngeen di bëgg a wax mooy xibaar boobu wérul amul ndax BIT site bi nga xamante ni ñoom fa la ñuy defee seen lépp ñi ngi ko tuddee ILO State maanaam International Law Organization for Statistics boo demee foofu ngay xool nga gis la fa nekk la fa nekk dafa la wax ni la ci 2019 nee na la dëkk bi nga xamante ni moo ëpp ay xale yu chômé maanaam ñu nga xamante ni euh, liggéeyuñu maanaam xëyuñu mooy Malawi te vingt sept virgule vingt huit virgule sept pour la nga teg ci ñaareel bi nekk Afrique du Sud vingt huit virgule cinq pour cent chômage nga teg ci Kosovo muy vingt cinq virgule six nga teg ci quatrième bi nekk ci ñeenteelu place bi Palestine vingt cinq virgule trois pour cent. bu ñuy xayma tey maanaam taux chômage bi nga xamante ni mi ngi Sénégal seize pour cent la maanaam téeméer yoo jël. fukki ak juróom-benn ñoo amul xëy ñoo wax ñoo remplir lépp war a am xëy te amuñu xëy loolu nag dafa sori trop ak taux bi ñu leen wax ni 48 pour cent la ma leen di wax ni leen taux bi gën a kawe ci monde bi Malawi moo ko am man nag waxuma dëkk yi nga xamante ni yaay ñëw déclaré lii ñuy wax il faut sa dëkk am agence bu mel ni ANSD ba pare nga bokk ci loolu ñu tuddee norme spécifique de diffusion des données. Maodo Malick Mbaye ñu wax ci gàmmu Tiwaawoon atum 2020 bi ñuy waajal rek ñu ne nag foofu ca champ de course moom daayira bi di Moustarchidine wala Moustarchidaty nee nañ noppi nañ rek ngir waajal li nga xamante ne mooy xew-xew boobee nee nañ jot nañu bale nettoyé lépp ngir ñi nga xam ne ñoo fay ñëw rek am fa ab nekkin bu mucc ayib ci loolee dañ ciy teewlu xalifa mbay mooy seen porte parole ci micro Cheikh Anta Diop gàmmu googu Maodo sos 1902 di ko def ba jóge fi njabootam yi di ko def ñi di ko def sëñ Cheikh Tidiane Sy radiyallahu taala anhu ci cadre bi may waxe nag daan ko def ci jàkk sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu di ko ànd ak mbokkam mu baax ma sëñ Mansour ñu di ko def ba atam 1998 mu jox ñu ndigal ci nañu gàmmu fii ci champ de course at ya ca des sëñ Moustapha di ko def ndigal loolu nag ki ko sampoon muy sëñ Cheikh Tidiane Sy radiyallahu googu mu doon gàmmu fii ci champ de course moom la Serigne Moustapha continuer di ko gàmm mais champ course bi xam ngeen comme yéen jël ngeen ci ay PC xam ngeen ni bi ngeen fi ñëwee sept heures da ngeen koo fekk mu fees dell ak ñax ak lu nekk wante waa dairatul moustarchidina wal moustarchidaati ci seen dogu ci ndigalu Serigne Moustapha mu ñu jëkkee di gàmbu fii la waa Tiwaawan engagé di bay champ de course. mbokk yi fii la ñuy yemale xibaaru marax yi di leen jaajëfal ci seen teewloog sa safo du ñu def dara du dul delloo lenge yi euh, Chérif Diop moom ak invité am Chérif c'est le moment de vous rendre l'antenne pour la suite de l'édition spéciale avec vos amis. merci beaucoup euh, Ibou Diouf pour toute